Euh, xam nga ci mais est-ce que euh, peut-être est-ce que di nga di nga regretter lu lu nga wax si Gorgui Dieng. jamais au contraire. mais Gorgui Dieng c'est une Sénégal. waaw quelle légende où est, où le problème. la légende ne lui permet pas de s'immiscer dans les affaires intérieures de la fédération avec des dirigeants. je veux être parce que Gorgui Dieng man Baba Tandian Adidas. ñu ñoo buuma carrière parce que justement magistère la nekk galon international. mais mais Sadio Mané exemple euh, président Sadio exemple su fekkee dafa dem gis Aliou Cissé euh, gis président Senghor di discuter ak ñoom par exemple équipe bi duñ ko war a defee mais loolu ñëpp a gis. ni c'est normal mais Gorgui Dieng c'est comme Sadio si basket bi. mais. loolu da ko war a nangu yoo tamit. yow yow yow vous êtes un grand sportif da war a nangu loolu ko Gorgui Dieng légende bu toll ko moom di dugg ci fédération bi di am lu mel parce que moom nekkul un joueur simple ah. nee naa la il veut être l'avocat du diable. non non pas du tout léegi entre man ak yow. ça dama lay wax man du dellu ginnaaw je vais te le dire et je vais te mettre mes arguments sur la dama ne jusqu'à l'extinction du soleil Gorgui Sy Dieng n'a pas à se mêler des problèmes de la fédération joueur la il est en activité. mais c'est pas un jour simple. alors mais ma la euh, mais y a pas de différence y a pas de différence pas joueur simple parce qu'il joue à NBA où est le problème. où est le problème s'il joue à NBA ou s'il joue en championnat de France en première division ou s'il joue en Tchécoslovaquie boo xam ne amu